Sunugal 24 point net pot bu rafet mu leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di ñaanal ñëpp jàmm nee naa leen seen émission Peulfun Time du ay fo du ay caaxaan ba tax na nee naa leen ndaanaan bu nekk dina ma uyu tey nag ma toog ak samay ñetti ndaanaan yi nga xamante ne ci ngoyaan la ñuy yëngu nekk ay ambulant am jom nee naa leen lu dul jom jom ko gën te lu dul liggéey liggéey ko gën balaa maa dugg ci ñoom di leen présenté damay ñaanal ñi nga xamante ne dañoo tëdd ci lalu hôpitaux yi yàlla fukk ñi nga xamante ne dañoo dëdd yàlla na yàlla xare leen ci aljana firdawsi ñi nga xamante ne caabi dina féete ginnaaw yàlla na yàlla génnee leen ku ci nekk dellu si say yitte dellu si say soxla yàlla faj aajo yëpp yàlla rafetal yàlla setal xol yi na xol yi set xol yi rafet nee naa leen xol yi xatut tali xat bu ñu ko yaatalee rek mu daal di neex euh, Omar a ngi nii buñ nee Ngoyaan ne Saalum tey du yomb tey fii dina wàcc ba ba zéro fii ci biir Sunugal 24 point net lépp fii lay xewee di big up waa bi Omar maa ngi lay ziar di la nuyu di la jaajëfal di ziar euh, euh, nandite moo mm, ah, ah. def la dem nag mais Omar Thiat mm-hmm. nuyul àdduna ma bàyyi àdduna nga nuyu wax àdduna Mm-hmm. waa mm-hmm. <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullah waa àddina bi asalaamaaleykum waa Saloum waa Sénégal yëpp waa Sénégal 24 ñu ngi leen ñu nuyu bu baax di leen ziare ah di rafetlu pël bu rafet sa émission bi ngi ñu tànn nga xam ne émission ndaanaan yi la nga ñëw dalal fi waa Ngoyane loolu duñ am lu dul kontaan si bu baax a baax. waaw di nuyu waa Nganda waa Kër Bakar waa Ginnaaw Raay àdduna bi yëpp maa ngi leen nuyu waa fan si club Thiat yëpp béggee naa leen. waaw. di lu si yonent bi sant sama ñaar waajur sant sëñ di nuyu waa Sénégal 24 di nuyu waa Pikine fu ma dëkk te lu bees di nuyu waa Géejawaay waa Parcelles di nuy ñëpp. nuyu sama première fan si biram maa ngi koy nuyu bu baax waa États-Unis Italie Angleterre Khady Balde maa ngi lay nuyu di nuyu Ndeye Rama di nuyu ñëpp di nuyu pël bu rafet ak suñ caméraman bu ñaawal bi di nuyu Zil borom ginnaaw raay waaw. waaw salaamaaleykum maa ngi pël bu rafet maa ngi lay siyaar di nuyu waa Sénégal 23 yëpp di nuyu caméraman bi. Sénégal 24 waaw maa leen siyaar lu bari di nuyu waa Sénégal di waa ginnaaw sama koñ waaw di nuyu waa waa koona bi maa ngi leen siyaar lu bëri. nee leen ngoyaan saalum ma ko moom ba tax na tey sama mbokk saalum saalum yi laa toogal Omar tey ba mu doon wax kan mooy Omar lan nga may wax fi nga débuté ba fi nga toll nii tey tey lan nga may wax. waaw waaw pël pël bu rafet lool boo ma ci laajee damay sawar di ci tontu boo ma laajee nag kan mooy Omar Omar mu ngi nekk mu ngi nekk koo xamante ni mu ngi juddoo ngànd yaroo fa màggee fa jàngee fa ba classe bi ñuy wax CM2 ah, yaroo fa ñëw miir na bàyyi di fa jàngee dooga waaw dooga duggaat nag ngànd dooga dellusiwaat fii si Dakar ñëw di liggéey waaw ko ci gàttal daal Omar a ngi juddoo ngànd yaroo Nganda jàngee miir na bàyyi. Omar mhm. waaw sama relation ak nan Nante mu ngi jógee Kër Massar dama ñëw fii di jaay fëgg jaay bi ma ñëwee di commencé di njëkkumaa jaay fëgg jaay mbuus laa njëkk di jaay bi ma ñëwee sama benn grand jël ma muy euh, yaawu jaal entraînement si fëgg jaay bi. ba benn sama benn xarit Cheikh Ñaan Kaolack la dëkk maa ngi koy nuyu bu baax euh, moom moo ñu moo ma jëlee si marché lu may yóbbu ma ñuy dem tijji place Kër Massar bu ñu tijjee mu nekk sama patron ñuy liggéey foofu noonu bu ñuy liggéeyee foofu ba si mu yàgg mu jëli baara dëkk ba muy Kër Baakar pour mu ñëw liggéey si fii nii moom lañ ko joxoon léegi nag ba mu ñëwee Cheikh si man la man la ko tegoon man la ko joxoon. bi ma ko joxee ma koy entraîné di ko jaayloo fag jaay fu ñu jëm ñooy ànd man ak moom foo ñu gis rek man ak moom ñooy ànd 2008 la ñëw moom 2008 ba léegi ñooy ànd si laa jógee Kër Massar ñu nekk si marché Loumé man ak moom tamit ñu ànd si marché Loumé di jaay ba nga xamante yàgg na Cheikh mii ba ñu xamante yàgg na moom lu jiitu baara di ñëw lañ xamante si marché Loumé boobu ñu ñaar ñooy dend place waaw dañuy denn place moom ak sama mag la woon sax Omar mbay ñoom ñooy ànd guddeeg bëccëg moom moom Cheikh mi ñoo doon ànd guddeeg bëccëg léegi nag bi sama mag boobu tukkee donte ñu ñaan ñoo doon dend place marché luuma yi bu ñu ñëwee man ak moom xam nga su may wëy moom muy bongo su may wëy ngoyaan moom muy bongo nga gis ne clients yi dañuy ñëw ñooy takkaloo place clients yi dañuy ñëw di tànn suñuy tànn duñ duñ duñ duñ séparé place yi quoi bu kii taxawee ci place bi di jënd bu paree ko seex encaissé da ngay foog na ñoo bokk bagage sax mais bokkuñ bagage bu ki taxawee ci place bi di jënd bu jëndee foofu lu mu tànn rek mu fay seex seex wecc ko bu jëndee sama place lu mu tànn mu fay ñu déggoo déggoo boo xamante ni yàlla nañu yàlla musal ci cat ñu nii ñu déggoo ba fu ne ñu koy tudd tourné ci àdduna bi ñu déggoo foofu la àndee chaque jour nante si la ñëwee foofu noonu ñu commencé bu may man ak moom bu ñu wëy moom muy bongo waaw ñi def ko far benn yoon équipe bi waaw foofa toj waaw macha allah amin yaa rabbi mm. di mm. fëlaale di def mm-hmm. ba tax na su ma commencé ba ubbi. Mm-hmm. te tudduma Adama Ndiaye Ndiaye jaata Ndiaye borom Kaolack centre commercial nga xam ne moo génn ak man fii si Taïbaas ci Jesner bu baax macha allah kon ma xam ne man mooy loolu daal. ndeysaan ah. doo gërëm yàlla Adama Ndiaye yàlla yàlla mm-hmm. loxo bi ba nga xamante ne yow la koo kuboon kubandooro ak kenn te loo kubul baaxul. ndeysaan yow kay waxuma la tàngal jox allah. xam nga kay lii tax ñu lay wax pël bu rafet ah nangu naa man moom nangu naa dama loon dégg pël bu rafet pël bu rafet rek waaye nangu naa ne léegi pël bu rafet léegi ba ngeen commencé <laughs> uh-huh. boobu hmm. euh, waaw waaw biñ commencé di jaay fagi jaay nii lañ loon ko wéyee lu jiitu loolu dañ doon fekk nit ñi di ñëw di wéy di taasu ci marché yi ñu ñu jógee Saalum comme fekk naa gars yi di wéy di taasu ku ne xam jaay doo ko jaay ak neen da koy jaay ay ngalaju quoi <laughs> ay tàccu man ma ñëw fekk gars di taasu ma indi ngoyaan teg ko Cheikh di ma bongool nante di aw ñu naan wanteeru bay faal tey la samba ngaan wanteeru bay faal wanteeru faal lay ndeysaan billaay njaayum gewel la njaayum gewel suma wanteeru bay falla yaay njaayum gewel suma perte wayaane wanteeru bay faal la waay Sénégal benn kaat la wanteeru bay faal la waay

ku ci mel ni Mati Diouf maman Aysata Dem ah nan si fay waa Gambi Aysa Gambi Amadou Bari Thiaré Cissé. yow booy tëj xoolal booy tëj bu la neexee sa nga nuy waa diaspora bi. def lu la saf. nga fëlaale Omar bi nga ñëwee fekk ci marché bi gars yi di taasu di def nga indi ngoyaan lan moo la inspiré ba nga dugg ci ngoyaan bi. ngoyaan da nga yàgg dund ngoyaan wala ngoyaan da la neex nu demee noonu. waaw xam ñun ay Saalum Saalum leen dañoo dëkk dëkk bi ñu naan Nganda. ñu yàgg a fekk ay sin sin yaay xam nga ku ci mel ne tëmb yàgg a fekk seen seen ngoyaan yu neex ñu koy ngoyaan foofu ci Nganda ak foofu ci tund euh, Saalum bi yëpp ma yàgg koo déglu nag mu yàgg ko mm-hmm. na ngoyaan rek na Saalum foo dégg parce que man amuma yaay bi woy amuma benn mbokk bi woy yaa dégg bi ma ko yàggee dégg foofu bi ma ñëwee ci marché bi nag dégg gars yi di di taasu ku ne indi loo manee ma xam ne na man ah man comme am naa culture boo xamante nii mhm. jéggaaniwu ma xaar ma wanteer ko ci marché bi foofu toj foofu toj ma indi si laa inspiré woo indi ngoyaan si marché bi loolu moom ma inspiré pour woy ngoyaan si marché bi ànd seeg nandite ànd seeg nandite mais de foofa toj mhm. damay faral di gis nit yi mhm. tey bu ñuy wax rek caat la ñuy wax mhm. te olof Njaay day day faral di wax naan fecc liir bu neexee yaa yaatee ca mbagg ya peut-être tey boo woyoon yow kese kenn awu la mun na neex mais pas tellement nuñ ko soxlaa xam nga moom mii tey bu bongo du dem tey jii booy wax nit yi ngay wax sénégalais àdduna sa sa digganteex ñii ak fan nga toll si ñoom lan nga kii moom ku damay dox si mbedd mi sax ñu naan ma yow ak Nante lu ngeen bokk man leen sama rakk la ñoo bokk ndey ak baay. moom de nit ñi sax dañ koy wax naan ko euh, rakk caat bi yaa ngi dégg kii moom man ak moom sax dañoo rusante dèjà moom man ak moom mënuñoo. rusante bi ngeen di dindi. non esan bi wallaahi man ak moom sax mënuñoo wax ba léegi te kenn xamul kañ lañ dala ànd ba léegi man ak moom dañoo rusante du wax ma teg ci. ban wala moom kersa gi ngeen gi ba léegi wër na yàlla dafay dox. kon xam nga ñaan ñooñu yàlla moo lañ boole parce que yàlla mooy jël ay nit di leen boole. bi ñuy boole nante da ngay jooy. nante bul jooy waaw bul yàq sama émission. na fekkee ko quoi waaw xolam moo fees. parce que mm-hmm. dina fees parce que ba ñuy ànd man ak moom dafa yàgg te métti nañ jaar nañ fu nekk. billaay lazi laa ilaaha illaa mais xam nga mu ngi neex bu leen mm. yàq te mu mënuma gis kuy jooy. parce que xam nga xam nga la. Mm-hmm. si xol la si xol la jógee man ak moom. fu ne. day da xool dama ko doon mag te moom dafa nekk koo xamante nii sax dafay nekk koo xamante mooy daf may conseil daf may xoolal yenn saa yi day toog sax jàppee ma comme rakkam dafal nii nii nga war a def te loolu duma ci teg ba dama koy def. kon xam nga man ak moom du ay caaxaan. ñu dem ci ngoyaan bi ndax jooy takk ñu dem ci ngoyaan yàlla yàlla musal ñu ñu dem ci ngoyaan ngi seeti ndami waaw. noonu lay ëpp na.